wudli bañ wis ko ci defar ko ba tabarkalla ñu gemb ko ba mu jek jiital ko yóbbu ci lamb ja wallahi ndeysaan jabar jini mom du dem yaramam mënul setan lool yalla xamna ko ah, daal di tok ci kër ga di ga xaar di ga xaar di ga xaar léeg-léeg coow am ca làmb ja waaye mi ngi lox sax di ko xaar ba timis gisul kenn mu ni waaw parce lii kenn mësu ko gis parce que xanaa bu doon ñibbisi tama yi ko doon yóbbu ak ndënd yi kay ñoo koy delloo waaye dégguma dara te julli nañu timis nit suuti rek jëkkër ji ne daña ànd moom rek mu ne ko lii lan la mu ne ko dama ñibbisi mu ne ko ana ñi nga àndaloon mu ne ko reere nañu mu ne ko kon musibaam mu ne ko ci lu mel na mu ne ko nu ngeen def ca bëre ba mu ne ko jëlli jaxaay na mu ne ko dimanche ji di ñëw bu dellu lañ koy defaat mu ne ko te dëgg la ni ko dëgg la kay man duma la wax fen mu ni ko sax nijaay mu ne ah mu ni ko am na looy xeeñ mu ni ko bu yemee foofu sax nga war a sant yàlla mu ni ko man mu ni ko man kay duma ci santante yàlla ne man bëréewu ma ni ko lii lan la mu ne ko waaye dégg rek li ma la wax bu yemal foofu rek nga war a sant yàlla yàlla te mu bàyyi noonu ba ca suba sa ñuy doxantooti nañu daan def ba romb fi ñu doon bëree mu gis fa ay salte salte mu ne ko nijaay lii lan la mu ne ko xaja ko fi def de du man mu ne waaw kay mu ne ko waaw kay lan mu ko maa ngi sunguf soo xam ni ko ga defé ci salté rek borom dé mu ko ko jox mu ko sama tante mu ko yow dé sa tante du nit mu ko ko luy rey kèn du ko jox xalé mu ko du ci dara man dal xaj dal bëggatuma ko gis comme mo fi def li rek ma ñoo sotti ko ci mu dem ba diko ci bëgg mu téy ci loxo bi ni ko bul gaawantu bul gaawantu mu ni ko wax ma lu xew mu ni ko daal bii wóorul mu ni ko ba ca des nag mu ni ko boobu moom wóor demal mu ñëw ca bu ñaareel ba di ko ci bëgg a sotti mu ni ko defal ndànk mu ni ko ci lu mel nan mu ni ko seetal ndax amul ñebbe mu ni ko waaw loolu lu mu ci doon mu ni ko parce que xaj du lekk ñebe man rek may lekk ñebe kon nag seet ko bu ci ñebe amee ba ko ci def mu ni ko yow yépp yaa ko def ñu nekk fi di xuloo ba xeex fa mu ñëw rek ni nijaay bi booye boo nga tas sëy bi mu ni ko mukk nag moo ko tas yow itam àdduna du noonu mujj ñu defaree leen te yàqu woon na ba noppi moo tax diggante bu ne defar rek ca baax yàlla xam na ko diggante bu ne defar rek moo ca baax tabarkala tabarkala ñu di ci bàyyi xel tey ñaan di ci boole tey ñaan di ci boole tabarkala tabarkala loolu la yàlla dogal wàllu réew mi sunu kilifa yépp dañ ci daan dugal seen loxo suñu kilifa yi Maodo sëñ Babacar dañ ciy dugal seen loxo man fekke naa wàllu sëñ Babacar da ci daan dugal loxoom mu mel ni rek tabarkalla tabarkalla délégation bu am solo ñëw na fi jóge ci président jóge ci premier ministre démb tabarkalla maa ngi koy wax Omar Samb ñoom ñu bari yitte lañu tabarkalla tabarkalla Idrissa moom itam tabarkalla ah noo ko jur moo taxit bëgg nanu ci noonu maître ma dikkee dem na dafa voyagé waxoon na ma ko bër ci dem Ablaye Wade dama booleeg moom ni ma def ko sa avocat parce que léegi avocat farata la ma nekk ceeg moom pour wax la ni ñoom ñëpp sama wëllëre la tabarkalla bu dee wàllu gëm valeur complémentarité mësuma ci jóg yàlla xam na ko ñoom ñëpp sama jur lañu ndax maa ngi ci waxtaan ak Babacar Niang mu naan ma moom doo xam ku la ci gën yéene jàmm mu ni ma ndax bi nga voyagé dama dem di seeti sa papa Cheikh Abdul Qadir mu ni ma Babacar anu Jatiya ma ni ko mi nga jeex ma nga Paris dama demal jëli ko ay mu dama ko gëj gis te yooyu farata la tabarkalla dina yàlla defal lu jàmm te defal leen ko yàlla taxaw nu te taxaw leen te yàlla faj jàngoro yi te faj aajo yi itam tabarkalla tabarkalla lépp mën na ko mu mel ni nag du tëb tëb def ko fokk nu ñaan ko ko te it fokk nu taxaw ci te loolu nun ñëpp ko bokk waa réew mi te itam waa daayira bi it ko bokk ak ñoom ndax daayira bi it suñu complice lañu yàlla xam na ko tabaarkalla te ñu xër ci sëñ kër Si lañu waaye ñu xër ci ñun lañu waaw d'un ah, may seen maam de l'autre ba Malick di seen baay ba ca des ah Moustapha di seen responsable moral waaw ngeen taxaw noonu rek te di ko yaakaar ndax sëñ Babacar moom boo ko yaakaaree rek tabarkal la ci wala yi mën a jëfandiku ci la bokk di ko bàyyi xel rek maa ngi koy nettali koy nettali gàmm gu nar a ñëw bu ma ko gisee lu mu ca def rek ma xam gàmm ga lu mu ca wax ba ci gàmm gi maa ngi leen koy nettali ca Dakar mel ni damay waaj pour ñëw waaye li ma ci jaaxal ma jàllaab maa ngi sol costume bu weex mu ngi sol moom itam jàllaab bu weex waaye lu mat ñetti téeméeri kilifaa ngi toog ñépp sol ba bu weex mu ne ma balaa ngaa dem nga ñëw waxtaanal ñu mu commencé waxtaan wi rek dal di jóg ma xam ni ci gàmmu gi lay wax loolu mooy li ci nekk tabarkal la parce que dara réeru ko dara réeru ko dama ko ñaanoon nag ni ko lu nar a yàqu sa gannaaw yóbbaale ko te sàmmal nu ko foofu mu gën mu nangu ko itam moo tax bi ñu ko dencee ba noppi sama jeneer beneen bàmmeel ci wetam ma ni ah mbaa bi dafa am ku koy topp ci ci semaine bi gannaaw gi ma fàttaliku ni affaire boobu la mag ñi dañ daan am ñaari bàmmeel bàmmeel pour seen bopp ak bàmmeel pour seeni secret seeni kayit duñ ko duñ ko bëgg a bàyyi ci biti ñu faye ko moo tax أجارتنا إنا غريبان هاهنا وكل غريب للغريب قريب walla ndeysaan benn jigéen la bu doon défendre honneur am ak honneur papaam ba ñu rey ko ñu wàcc ko nag ca àll ba ni bu ko kenn yóbbu ci suñ ceer xajul ci suñ ceer ndax dignité ma ëpp loolu ñu bàyyi ko ci désert bi àdduna yépp di ko fa fekk moom ndaw sax te suul nañ ko lu dul góor ga ñu rey ca wetam ñu suul ko ñoom ñaar ñu nekk fa kenn xamu ci sa turu morom